naa sax ku ma gisanteel mu ne ma Karim la ma ni ko nan toog nuy waxtaan ma ni ko Karim du candidat yow sénégalais nga te bàyyi Ablaye Wade moom ci boppam bu àndoon ak kenn ci ñi ci des day joxe moo de moo moo ni nañ wote mais gëmul kenn doomam la gëm doomam a nga ci Qatar du ñëw fii waxoon naa ko waree saar ne ko ba àddina buuf tey wal Karim doo ko gis fii mu wote ñemewu fee teg saxub tànkam xam nga man damaa xam li xew ci réew bitim réew bu ñu waxee ñu ni way CEDEAO cour de justice te ñi koy wax xamuñu lu mu ndax man falaa ne ab institution laa yor ganayen bi ko yoon sama xarit la dañuy waxtaan Ciré Clédor mii lañuy ànd ba ci bi mu mujjee dem di déposer recours ma ne ko yow yaa ngi yàq xaalisu Khalifa sal recours bi du dem mukk duñ ko xool sax ndax loi interne Sénégal ni ñuy doxale seen constitution ni ñuy doxale parrainage ni ñuy doxale ki ñuy rejeté du juge CEDEAO moo koy atte fii la fii dañoo am ay juge yoo xam ne ñooy atte lu jëm ci élection ñooñu nee nañ war te bindu Youssou Ndour Ablaye Wade dàq ko ci parrainage ah dañ ne waa kër Youssou ñoom nañu rey réew mi kenn du rey réew mi ndax Karim Karim defalul Sénégal luy tax ngeen di dee yéen doomi Sénégal lank leen Karim anamu